ndax dama cee yaraw à l'âge de 11 ans laa jébbalu ci Cheikh Béthio keroog bi ñuy njëkk feete 17 avril di ko def cant mm. anniversaire u tey bii mm-hmm. maa ngi toog fii lañu ko feetee Liberté 6 mm. sama ko ñu kër yaay jëwriñ Abdallah Diop Jokalante Ndam moo ko njëkk woote terrain Liberté 6 en 2006. en 2006. ñu sant fa Serigne Saliou. noonu la fête bi dooree ba tey jii may wax ak yow ñu koy feete at bu jot ndax cheikh bi bi mu dajeeg Serigne Saliou. ba keroog 2006 xamul woon bis bi. moom daal xamoon na ne rek moog Serigne Saliou dege nañ ca taset. at bi nga xam ne moom la Serigne Fallou aw ba su jox réew mi càmmiñal Mariama Kunte génn àdduna ànd ak a topp. te ku ne xam na ne Serigne Fallou mi ngi génn àdduna am 1945. kon tey boo ko tegee ci yoon. boo ne at ba ko topp rek day ñëw ci 1946. moom xamoon na ne moog Serigne Saliou 1946 lañ daje waaye xamu woon bis bi exact.

bi mu fa nekkee mook magam ju góor ju ñuy wax sëriñ Gille Cuun waaye boobu sëriñ amul ndax booba ñoom ay ceddo lañu sëriñ bi seex gi feeñee murit gu dëgg gi feeñ ci la sëriñ ñëw ak seex waaye booba gille amoon ak beeco gille di mag ji ñu tuddee ko gille cuun beeco di rakk ji ñu tuddee ko beeco cuun <clears throat> damay ñëw ci tur bi nag balaa maa ñëw ci ràkkatu bi ñu bëri day dégg beeco te xamuñu liy beeco léeg sax nga gis ay nit ñu ñàkk yar ñu ñàkk teggin di ko fooye beeco bras droit buur la daan doon booba buur yee fi nekk ak chef de canton yi ak chef de village yi boobu président amul ministre amul chef de quartier amul li amoon mooy buur chef de canton ak ñi nga xam ne tey ñooy ñooy ñooy ñooy nànk ñi représenté tubaab yi nga xam ne tey. ñoo ŋànk réew mi. ndax boobu indépendance feeñagul. tubaab yee fi nekk yor mu dinu doxal. barab bu ne ñu sam fa ab jëwriñ ba ko fa muy doxal. yàlla dogal nag wëllëreem bu ñu wax Omar Kuli Cuun di wëllëre baayam ndax bàyyi Seex Béthio moo tudd Omar Kuli Cuun daa amoon wëllëre bu tudd Béthio boo xam ne moom Omar Kuli daa nekkoon xaritu buur bi waaye dib géwélam waaye Béthio it nekk wëllëreem di di di protocole buur bi di xaritam di bara duraam ñoo am ñoom ñaar relation yu rafet relation yu sensible relation yu dëggu bokk kenn ki ñu jàppale ñoom ñaar muy buur bi Béthio di bara dura bi Omar Kulli di géwélam ñoo ànd ànd wu rafet ba Omar Kulli jur doom tuddee ko Béthio Béthio fonction porte-parole les, les lay les, lay signifié bras droit les signifié chef de protocole lay signifié yàlla dogal nag bi tur yi feeñee ba mu dajeeg Serigne Salim Mbacke ca taset boobu Serigne Salim mi ngi jugee ci daara ju ñuy wax daaray got daaray daaray daaray daaray mbour. borom yaa ngi dégg ñuy wax Serigne Salim borom got ak mbuur daaray got biir mbuur dafa amoon daara ju ñuy wax daaray got foofu la Serigne bi jugee. di dem benn kër taalibeem bu ñuy wax Bayis mu Juuf di ko seeti bi muy dem di seeti Bayis mu Juuf romb ci toolu kulli cuun kulli mooy bàyyi Seex Béthio Omar kulli bi mu rombee ci tool bi fekk Béthio di bay ak ak ak gille Béthio mooy sama sëriñ mooy Seex Béthio bi ñu waxtaane tey gille mooy mag ñi bi leen fekkee ñuy bay boobu Béthio nga am juróom-ñetti at gille nga am fukki at ak ñaar wax ñi ngi magante ñeenti at ñoom ñaar sëñ Saliou romb ak wutiir wi bi mu rombee ci tool bi nag boobu béykat comme xale la. Mm-hmm. juróom ñetti at xamul sax ki ne ci witiir bi. xamul it lan la. Mm-hmm. waaye mu topp ci daw di lang. <clears throat> li gone yi def ñun ñëpp jaar nañ ci muy lang. oto da lay romb nga lang. sereer romb la nga lang. mboto sax léegi xale yi dañ koy lang. Mm-hmm. béykat xale la. ci xam-xamu tawxiit nag tey da ngay comprendre ne doonul woon yëfi gone. waaye baatin da cee laxasu ndax boobu sëriñ bi soxla na ko ci baatin te da ko waroon a jël si immédiatement amul xaar waaye zaahir tey dalay wan naka deeco xale la bu xamul fu mu ne bu xamul dara bu amul conscience boo xam ne tey war naa xam ki ne ci oto bi kenn laaj du moom mu topp ci lang ñu wutir wi bi mu toppee lang ba yàgg sëriñ Saliou ne kii dawal wutir wi taxawal mu taxaw mu ne ko dafa mel ni day daa am gone guy lang ci ginnaawam wool ma ko borom itin bi taxaw gaar saret bi daal woo xale bi ne ko ñëwal nga wuy sëriñ bi borom itin bi xam na ne ki mu yàpp doomi sëñ Tuubaa la sëñ Saliou Mbàkke la ab sëriñ la waaye beeco moom xamul ki ne ci witir bi day lang rek def yi fi gone waaye Serigne Saliou comme dem ci gone ak mbëggeelam ci gone ak yàgg bëgg xale dem ak xolam mënu koo may xale bii lang ba gaañu mun a mun a waa na taxaw dawalkat bi waa gi taxaw mun a nañ ko wol xale bi ñu ñëw xale bi tiim ko ci seret bi tàllal loxo bi nuyoo mu ne ko monoko ndongali noo tudd mu ne ko beeco mu ne ko noo sant mu ko cuun mu ko foo dëkk mu ne fii laa dëkk set sama bàyyi nga tudd Omar kulli cuun mu ne ko kee may seen ca ba kana te jaaliwu koy laaj de mu ne ko sama maga gille la tudd mu ko wal ma ko beeco woo gille gille ñëw Serigne Saliou ne ko yaag sa rakk ji bu tàkkusaan maasee na ngeen ma fekk fee kër Baye dal na tàllal sen loxo ñu tàllal sen loxo ñom ñaar mu ñaanal leen béytu and ak jëlle de wéle ab bayam ndax baykat la jamono joju muy bay ñi ngi tollon ci atum cioron atum cioron ku ne xam na ne bi nga xam ne ci li ni gëna farlu ci walum bay ngir waajal nawet bee bay beur waaj jot mu and ak magam dal dem ñibi kër bayam Omar Kulu bi mu kër bayam dal di tagu bayam ne ko man dafa am sëriñ bu ma romb ci sa tool wi nuyonte ak man invité ma sama kër maam bàyyi sama juuf mm-hmm. bàyyam ne ko demal ànd ak sama ñoo ñooñee dëkkee Touba day sant Mbàkke ay nit ñu baax lañu mm-hmm. waaw boobu bàyyam dub taalibe dub murit yoonam nekkul ci njabootu sëñ Touba ak waa këram waaye rafet na njort ci ni mm-hmm. ñi dëkkee Touba sant Mbàkke sëñ tubaa di seen baay ay nit ñu baax lañu mu daal di seede ak mbaax ci sëriñ Saliou na beecu ànd ak sama gille ngeen daytu ànd ak magam la dem bi ñu demee ci toogaay bi ci mbooloo mi booba gone la de juróomi at la am mag jaam fukki at ak ñaar li mbooloo mi bari bari bari bari bari kër bàyyi sama juuf dafa egg si rek Serigne Saliou ci mbooloo mi daal di tàllal loxo nit ñi xool kan lay waxal ci mbooloo mi kenn lay waxal kenn xamul ko la Serigne Saliou di waxal mu ngi mu ngi joxoñ baaraam bi. Mhm. ba Béthio si gi jàkkaarloo moom mënu ko nii. Béthio jege si mënu ko toogal lii ak sama ñu toog ñu indi wasalit bi wasalit. benn xeetu teel goo xam ne ñun taalibe yi moom la ñuy faral di naan ci cant yi bu ñu xéwaloo ba noppi oh, naana la ak tuuti warga ak suukar mu bari mhm. ngir wàcc ndawal li mhm. bi ñu ko indee Serigne Saliou kaas bi mu njëkk xel li béyta la ko jox te boobu mi nga am juróom ñetti ko fa fekk ay moromi di jaayam ak i moromi maamam ak i moromi baayam premier kaas mhm. Serigne Saliou jox ko bee jox na saam dana moo yàgg bëgg xale moo yàgg fonk xale waaye moo yàgg xam njariñu xale ëllëg te sa jaal bu nit de. raxu man sama njariñ tey bi ma màggee ba topp télé bi la ko samay mbokk xam ak sama waa ak sama baay ak sama maam. sëñ Saalum da am 3 ans mu xool la xam sa njariñ fekk. la 50 ans. loolu moom am na moom. looloo waral daan woon fooy gone. parce que li muy tekki ëllëg. kaas bi njëkk premier kaas ay nijaay beeco gi toog ak maam mu jox ko beeco na ko naanal. beeco naan mu xelaat beneen kaas jox ko na ko joxal gille. Mm. bee jox gille. Mm. ci la beeco nag daal di jébbalu ci moom. ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira mm-hmm. à l'âge de huit ans. à de huit ans. lii mooy rencontre bi Kër Baye Isma Diouf. Mm-hmm. ci la ko Serigne Saliou nag tàmbalee tette tàmbale ko bàyyi xel di suivre li nga xam ne tey mooy ab dundam muy ñëw di ko seet si fu mu dégg la Serigne baa nga fa mu dem fa. di dem ci daara yi dafa fekk Serigne bi boobu Serigne baa ngi féetewoo Mbuur. Béthio mm-hmm. gi dëkk Thiès diggante bi sorewul. boo amee examen ci wàllum njàng entrée sixième ñëw na mu wéy la am njàngam ba mu sax am BFEM ñoo ni ko sëriñ bi ñaanal ma sëriñ bi ñaanal ko mu wéy la am njàngam ba fi mu tollee ci am bag ñoo ni ko sëriñ bi ñaanal ma sëriñ bi ñaanal ko mu wéy la am njàngam nag ba war a tàbbi ENAM ca concours bu mag ba nga xam ne fa la génnee doon administrateur civil de classe exceptionnelle ah, intellectuel dëgg la sëriñ ñaanal ko bugg nga ko ci am njàngam ba bugg nga waale ko ci ay liggéeyam ci bi muy nekk fonction fii ci mairie bi Pikine bi muy nekkaat fonction ci mairie bu Kaolack. yëpp Serigne Saliou ko gunge ci baatin ak ci ay ñaar. ba 1987 nag mu woolu ko ba mu ñëw ne ko ah mbiru yàlla feeñ na ci yow tey nag. Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko bis ni tey def naa la sama seex. lii yëngu seex waaye ba 87 Béthio Thioune lay dégg. waaye 1987 nag la ko Serigne Saliou ne ko def naa ci yow loolee ñu naan ab seex. mu ne ko moo Mbàkke du ab seex mu ne ko du loo mën a xam. waaye jàppal sama diggante ak yow ñu ñaari ndabi dox nga jël wattu ndaa di tànk fii di sotti fee munoo cee xam dara lu tokk tokk ndox yi war di ci seen diggante mm-hmm. ndax beeco mu ne ko mbàkke mu ne ko li ma def ci yàlla sama borom xam ko mm-hmm. tàllal say mu tàllal loxo mu ñaanal mu ne ko jugal dem dem mm-hmm. ca la beeco gi jolli ba tey jii ma wax ak yow oh, ca la tàmbali nag dajale mbooloo mi di def nag chaque dimanche ziar général dem fekk ji Serigne Saliou mbakk ca daara ya ànd ak doom ya ànd ak soxna ya ànd ak mbokk ya ak taalibe yi di ziar ziar yooyu moo dem ba màgg xajatu cib ziar moo indi cant gi. Mm-hmm. ñu koy woote chaque bi mm-hmm. tàmbalee woon ko fii. ci Las Palmas. Mm-hmm. couragement Béthio. loolu ko indi. géejawaay fii ngay dégg ñu naan couragement Béthio. cant gi fa daan am am 1987 88 ba 89 ba 90. àdduna sépp di fa daje. waral ñu tuddee croisement boobu croisement Béthio xajatu fa ñu tegaat ci ñetti at ñeent mu jóge croisement Béthio wàcc Labat Fall mm-hmm. bi mu wàccee Labat Fall ba vers 94 95 96 boobu nag li muy liggéey ci wàllu nguur may na ko xéwal li mu mën a jëndee kër. Mm-hmm. ndax boobu administrateur civil la de cas di mm-hmm. liggéey di am di am xéwal di ami marché di di fayeeku ca la dem nag Sotarat Mermoz daan fi jënd kër. mooy fii ñuy cantee ci Mermoz tuddee du Sahel. du Sahel très bien noonu la Tchad gi wéyee di wéy di wéy ba jóge fii. ki mhm. sotarak mer moo tab man na salaam. mais damay ñëw nag ci li nga xam ne mooy bis bi. bis bi la avril. Mhm. danaaw nettali naa la li xew ki daje bi ak rencontre bi mhm. ak fi jébbul bi sa soow waaye nan la béykat xamee na ne 17 avril la. waaw daa jékki rek. mu mel ni dafa am lu ko dugg ci xel ci deneer di ko wax na waaye yow béykat yow nit ñu baax ñëpp. seen dajeek seen nit ñu baax nga ñu ngi koy feete ba ci sëriñ seeg wàllu yeeg xutbu zamaan yeeg ustaas yeeg imaam yi ba ci yonent yi mm-hmm. ku ci nekk bés ba nga xeexoon <coughs> bés ba nga xeexoon ba am ca ndam tey sa ak kër nga koy woote di ko feete mais yow sa waa kër am ci yow benn souvenir fekk muy màggal ak gàmm ah béykat jot na la nga gëstu sa dajeeg Serigne bis bi mu doon nga di ko feete. nan laa koy xamee. Mm-hmm. mënuma koo xam. huit ans dugg gu may koon. nan laay xamee bis ma dajeeg Serigne Saliou mënu ma ko xam affaire bi nag tàmbale ko jàpp tàmbale ko perturbé tàmbale men xel mi. Mm-hmm. mu dem ba yàgg ndeysaan mel du ko day wéet. Mm-hmm. day di xalaat. waa man nan laay fexe ba xam bis bi ma dajeeg Serigne Saliou Mbacké waaye mënoo ko xam at ba nga mën a xam ndax mooy at bi Serigne Fallou génnee àdduna at bi bis bi moom mënoo xam. xam. waaye sëñ Saliou Faat Jaxate moo dul nit balay si budi sëñ Mbàkke maaram maam jaarama ci poroxaan xaadim borom nit ñi amar bisumi ci baal yi Saliou Faat du ñetti fan la ko ñetti fan di ko jooy ci xolam te waxtaanu dogal bis jot mu aaye ko suñu wax soxna ay samaama booba soxna euh, cheikh bi ñaari soxna la am mm. muy soxna mboose mi aawum mm. ak soxna ay sami ñaari lam soxna ay sa sama sëriñ sëriñ Saliou Seydina Thioune sa xarit mm-hmm, sama xarit soxna mboose jur sëñ xaadim Thioune ak Saliou Suisse yàlla dogal cheikh bi féetewoo ko soxna Aïcha dem fa reer ba suur tëdd di nelaw di dallu sëriñ Saliou bàyyi ko moom mi nelaw te noonu na ko wande ci gént mu feeñu soxna sim tëddal di soxna Aïcha maama ci gént ne ko nel beeco 17 avril la soxna Aïcha ne bërëg tic ci ay naaw daal di yeewu rek kàpp seex bi ne ko jugal mu ne ko lal la Aïcha lu xew mu ne ko luy 17 avril ay sama may laajte de mun ne ko lan mooy 17 avril mu ne ko na ko 17 avril mooy waxi lan lam lam mooy 17 avril yow da ngay gént wala ci lan nga nekk nii mu ne ko ah Serigne Saliou de moo ma feeñu na ma nel beeco 17 avril la. ndax mhm. cheikh bi daanu jënd xëm. ndax booba lim doon laaj ci xelam ak ci xolam te mënu ci waxtaan ak nit moom la Serigne Saliou feeñu ndaw si wax ko ñu mhm. soxnaay sa maam sunu yaay lii moo indi bisub 17 avril. waaye comme boobu Serigne Saliou di dund. béykat du tënku ci ay gént kese. Mm, mm. ca saasa la taal oto bi jubali Touba dem siyaare gi Serigne Saliou fekk ko fii ci xayga xayga mooy boo génnee jumaa yu Touba. Mm-hmm. kër Serigne Saliou boo duggee rek garabu guy gi nekk ci buntu kër gi. Mm-hmm. fa la Serigne Saliou daan toog ndongo daara yi ak ndongo tarbiya yi mu dem na ko ah Mbacke man de damaa ñëw sant si Mbacke de war na ma ni yaa ne ci sama xel yaa ne ci sama xol. Mm-hmm. Mbacke yegg nga ak man foo xam ne. yamatoo ci may laajte ngay dégg di tontu waaye lu ma ma bëgg ci sama xel rek mbàkk yëngu nga ko ba tontu ma ci te na nga koy tontoo mooy ni ma ko àttanee rek waaye mbàkk waaye mbàkk mënoon nga ko tontoo neneen lu dul noonu. Mm-hmm. ndax mënoon naa ko laaj sama xel sax nga tontoo ma sa kàddu ma toog fa ma toog di ko dégg. Mm-hmm. gis nga xam-xam ak tawxiid ga muy waxee ak baatin ba moom Cheikh Béthio parce que dañ ko dimbali jàmbar am ku dimbali am mm-hmm. Béthio Serigne Saliou woo ko dimbali waaye mu ne ko mbàkk nga jaar ki sama soxna su baax Seydi soxna Aïssa jox ko bis bi moo ma tey na ma Serigne bi nee na 17 avril la Serigne Saliou muñ ba yàgg na ko sikkiwul de sikkiwul nag baat olof la sikkiwul mooy juumul lii moo indi baatu 17 avril 1946 soxna Aysa la sëñ bi fee ngi ci gént wan ko ko cheikh bi yeewu taal oto bi dem ci Serigne Saliou di ko vérifié Serigne Saliou confirmé ko ah. ne ko ah ba sàllaaw de beeco sikkiwul lii indi ñu jàpp bisub 17 avril ba tey jii ñu koy feete fii nag ci Mbuur Madinat Salaam ñu ngi ko dooree ci Liberté 6 fii ma yaroo sama ko ju kër yaay en 2006 at ba ko topp 2007. lañ ko yóbbu Madinatu Salaam ba tey jii may wax ak yow. Mhm. Madinatu Salaam nag muy nga xam ne tey Serigne Saliou Mbacké moo jox cheikh bi tur bi ne ko ko tuddee Madinatu Salaam. Mhm. ndax booba seex bi dafa ne sama taalibe yii topp ma bëgg ma. te seeni way jur ñu ci ëpp ci ñoom nangu luñu leen seen ànd ak man mhm. ba ñu leen seen mhm. dee te amuñu kër danaa ko layoog Serigne Sall bay ko dem débloqué ci de sept milliards mhm. dem jëndee ko ay terrain may ay taalibe plus de mi am naa fa kër keneen ak keneen ak ci samay nawle ceen tàkkoon am nañ fa kër te moo nu ko may suñu dërëm demu ci boo fa demee fii rek may wax ak yow moo dàq Mermoz dëgg la de barke Cheikh Saliou fa jaxate tabax nañ ko étage yaa ngay jug ca kaw. R mm-hmm. plus 2 yeeg plus 3 yeeg plus 4 yeeg. gaa yaa ngay takk seen i dugal njaboot gaa ngay judd na ngay doxal cant gaa ngay réer. <laughs> janatu ma xool ndeysaan foofu la cantaakum foofu la jugee. foofu la mooy cant gi. mooy cant gi. waaye mais ca dàkkoon loolu jëwriñ Abdoul Aziz dana ci indi ay leeral. ndax ndax ndax ca dàkkoon. Cheikh Béthio moomu ko. moomu ko sëñ Saliou moomu ko. sëñ Touba moomu ko. yàlla ko moom. ndax moo ne man yàlla may ca dàkkoon bu mag bi. d'accord waaw. yëg mi loola daal du <laughs> Imam Abdoul Aziz xam na li may wax. <laughs> aaya boobu la mu koy li nga wax déggu ma <laughs> da ixmiloo ala daawda sukkuran. yéen ci yàlla daawda. daa bëggoon yemale ci ak cantam digganteem ak sunu borom ci alhamdulilah lu dul jeex. yàlla wàcce aaya yàlla wàcce aaya na ko moo daawda. Hmm. bàyyi wax ji. ak cant kenn du ko wax dañ koy jëf. déedéet. ix mi loo. waaw daaw da sukkandiku. yow daaw da baal wax ji. loolu sas dana ci ay leeral. kon aaya la. sas xam nga ko. sas xam nga la baax. waaw. mën na tax bu ñu waxee benn rek. Hmm. dem ci. ak Cheikh Béthio. Hmm. maanaam bu ñu waxee benn rek. xel dem ci Cheikh Béthio. loolu nag li ko waral. Euh, dafa am bis. cheikh bi ak dundam ci sëriñ Saliou Mbacke la ak am mhm. lu daf ko mës bëgg. Mhm. mës a bëgg di ko liggéeyal ak di ko jëfal. tàmbaloo mhm. ko. gis <laughs> nga.

Machallah. Alors, si vous nous rejoignez, merci pour votre fidélité. Vous suivez l'émission After Plus. On est très ravis et très heureux vraiment d'écouter euh, Omar Chilumi Warti, euh, Degante Sherbecho, Tchun, euh, ak Serigne Saliou Mbake histoire solo. et puis vous yaram ndaxte ngay ans ak Serigne Saliou vraiment histoire bi la rencontre est magnifique. sofia daam loo bëggoon laaj euh, Umaru. ah waaw man moom xam nga laaj ci berne yi. waaw ñëwul foofu ñëwul ñëw ñëw ci Sophia. dafa fekk micro bi dagg. wax nga xam nga bu may waxtaanee sëriñ bi. waaw damay tàbbi ci xaal. maa gën a saay saay ci àdduna nag ab wuyu buy dox laabu bu tekkiwul dara. waaye sëriñ bi rek laa bëgg. Ah, dëgg xam nañ ko moom. Euh, dafa mës a siyaare ji sëriñ Saliou ànd ak njabootam ay doomam ak i soxnaam ak i mbokkam booba tollagul ci doonub sëriñ boo a jiite mbooloo waaye boobu ay mbokkum taalibe la am daara ji njëkk sanc ñu tuddee ko daara sëriñ Saliou Touba HLM la mhm. fii ci raay bi Sofia mi fa la juddoo mhm, raay bi xam na daara gi dafa daan dem mhm. ka fa nit ki nekk jëwriñ mi ngi tudd jëwriñ Papa Ndiaye universel mu ànd ak ñoom ànd ak daara bi dem siyaare gi sëriñ Saliou baal ma Papa Ndiaye boobu moo nekk Bordeaux. déedéet bokkul Papa Ndiaye bi léegi mag la. ah d' accord Papa léegi am na plus de soixante cinq ans mag la. d' accord très bien bokkut ak Papa ngay wax. mooy toggal cheikh bi su nekkee. Hmm. yàlla dogal bi mu toggee ay berne la day dem siyaare gi Serigne Saliou xam nga dafa am loo xam ne ki diggante Serigne ak taalibe. Mm-hmm. dana la koy dana la koy sol du la ko wax tey bari na lu taalibe defal sëriñam bu dee sëriñ ba borom baatin dëgg la moo ko sol mm-hmm. moo ko def moom moo ko def ci moom. mu def ko ñëw indi ko. waaye boobu comme Serigne Saliou bëgg naa def Cheikh ko cantaakoon mu sol ko toog gi berde indi. te oustaz xam ne li may wax. lépp daraja ak yool togg ñam jox doomu aadama amuñ ci diine. maa la ko wax lu oustaz dana ci indi ay leeral yoom solo. Béthio togg ay xéwal ànd ak njabootam dem yóbbul Serigne Saliou ca daaray gor waaye bi mu ñëwee. comme cofeelam ci Serigne Saliou may ko mu koy tiim di soli dàll mu a sama njaboot ñi ma ànd ñëpp nañ simi seeni dàll ñu bàyyi ko ci buntu kër ga ñu bàyyi fa dàll ya di dox di dugg ci daara ji léegi diggante buntu kër gi ak daara ji lépp suuf la te mi ngi fi ko indi boori tisbaar naaj waa nga tànn jër léegi nag Serigne Saliou comme yërmandeem ci doomi aadama ak ci jigéen mu ñeewantal jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne ñoom la cheikh bi indi di leen doxloo ki bu tàng bi ñu yónnee bool ñi defi ginar ñi defi soos ñi defi macaroni ñi ciébu ginar ñi ciébu yap ñi bañé ñi café ku ne yamu ci sa ci serigne saalu tang jër dal di soppi melokan melni ku mer ndax bobu yermane dem ci xalé ndaw yi ñen bol yi moko moko tanglo cheikh bi ñëw tek xewal li rek mu ne ko moo yow anu lu waral nga def li naaj bu tang bi nga yan xalé yi ndaw yi xalé yi jigeen yi bol yi ki naaj bu tang bi nga lu waral sa jëf ji tang jeur ki tangor nak la ko serigne bi waxe moo ne ko ah Mbàkke xanaa sant si la. rek sëriñ giif waa day giif xam nga lu war a buy giif. layin sakartu. Hmm? la xas itam dëkk. Hmm? oustaz xam nga li ma la. awoor bi daa waaj waaw. Hmm? li waral muy giif mooy liñ ko wax ne ko moom la def si kun ko wax boo jógee woon ci yàlla wàcc ci nit ñi di nga giif ndax yàlla ko wax ñaari yoon ci gennaaya na waat naa man yàlla ku ma sant waat naa la dinaa la dolli nga ne lay la lay in shakartum la xasidanakum <laughs> waat naa ne man yàlla ku sant waat naa ne dinaa la dolli xam la la ko jagal ah béykat mu ne ko mbàkke mu a ko jàppal ne bis ni tey mm. yàlla bëgg na yonent bi bëgg na Serigne Touba bëgg uh-huh. ndax loo ay mën a nekkee loolu ak cant. ak uh-huh. cant ku gën. lii uh-huh. mooy indi nag baatu cant ak cant ak fii la man léegi daggee nag. léegi nag comme Cheikh Béthio intellectuel la. nit la ku yeewu ci wàllu àdduna. jàngkatu tubaab la woon. mu ne ah fi ma wax nag foofu xasan. loo def yàlla bég ci. yonent bi bég ci Serigne tubaab bég ci. te mu gën leneen loo mën a def lu dul lii. ah ci lii laay sax. par doomu aadama yi bég ci. waaw ci la nag Cheikh bi nag jël dundam moom. moom fas yéenatul jàng fas yéenatul liggéey fas yéenatul dem fenn li muy def daal mooy li la ci banque bi ak lan nga te liggéey muy jël di jaay di cant cheikh bi yeggoon na ci jaay ay terrain ak jaay ay këram yi nga xam ne bi muy nekk administrateur civil lu ko ut ngir ay ñariñu doomam ëllëg mm-hmm. jël na ko jaay ko jëndee ko ay nag sante ko Serigne Saliou mm-hmm. parce que boobu amul ay taalibe yu ko gëm yuy ñëw di mën di jëf tey nii ñu jëfee da daan jël ay terrain boppam ak ay kër boppam ak ay oto boppam ak li ci banque bi di ko jaay di ko dinde ay nag di ko sant Serigne Saliou di invité nit ñi ñu koy teewee lii moo indi cant gi muy màgg di màgg di màgg di màgg di màgg ba tey fun baas rey juróomi junni nag plus de 5000 ba daanu na tey mën na salaam ci diggante kër Soxna da Diallo mm. ak kër Serigne Saliou ndigal cuun ba ci yeneen doomi Cheikh Béthio ñoom Serigne Khadim Espagne ah, Serigne Khadim Mboose mm-hmm. Serigne Saliou Suisse Midadi Serigne Saliou Seydina moom Marabu nga xam ne mu jógee fii léegi fa laa jëm fu ci nekk boo demee nag yaa ngay jàmbaajoo ña ngi ko sol ci kër yi ba mu fees dell di ko lawatal di ko jox jaam yàlla yi te moo ne bi muy door day metti woon na waaye tey yàlla fay na ko ndax li mu nekkee kenn du ko nekkee dell ginnaaw mm-hmm. bi mu koy door ci peese ndawal la ko dooree mm-hmm. juróom-ñaari kilo yàpp waaw bi ñu ko njëkk woote biir këram ci kuur gi hmm. na tey dama yëg sant Serigne Sall waaw waaw mboose hmm. damal marché tey moom dañuy sant Serigne bi damal marché jënd juróom-ñaari kilo yàpp mboose dem jënd juróom-ñaari kilo ndawal ba tey ñu ngi ci combien de bœuf gëléem xar ganaar ci ñaata lañ toll tey muy màggalu Touba muy 17 avril hmm. muy gàmm ndax lu gëm nekk ca yàlla <coughs> kon kooku amuñu fayam tey sunu sag la woon sunu bànneex la woon ñu di ko feete mu ne fi absolument waaye yàllaa def li gën ndax kenn saxu fi moom Cheikh Béthio digganteem ak mhm. waaw laaj nga lu am solo mhm. ndax yoonu murit dafa am nu muy doxee mhm. gannaaw mbukki mbalaan boo amee sëb sëriñ yeeslu ci moom mu nekk sa jóoriñ ci àddina dox sa digganteeg sa diine dox sa digganteeg sa sunna waaye dox sa diggante Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu yonent bi ñool màkka mhm. ndax loolu it lañuy ñuy doyee kilifa mhm. sëñ Moussa Ka dina am kilifaay li am solo mhm. soo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéruwul yom ba max tey li nga xam ne tey moom la lislaam digle mooy bu génnee àddina nga xool ci njaboot gu góor gi mu fi bàyyi ki ci mag nga yeeslu ci moom ngir kóllëre waaw nga gestu mm-hmm. ci moom ngir kóllëre waral bi Serigne Saliou génne àddina en 2007 làqatu suñu bët wuy ji Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul cheikh bi daa ànd ak njaboot gépp ak taalibe yi fa ma fekk maa ngi toog ñu dem ñun ñëpp mu jébbal ñu Serigne Cheikh Saliou mm-hmm. loolu barki dem moo ñaay la yàggul 2007 la mu ne ko Mbàkke jébbal naa la sama bopp jébbal naa la sama njaboot jébbal naa la samay taalibe taalibe Cheikh Béthio boo romb ak doomi Cheikh Béthio soxna Cheikh Béthio taalibe Serigne la mm-hmm. doomi Serigne Saliou ju góor ju góor ju mag ji fi ne mooy sëriñam terewul nag ñun ci suñu biir mën nañ amalante ay sëriñ Omaroon a seet naa cuune sama sëriñ big taf na sal ga tàppe sama sëriñ kenn mi daal di sama sëriñ parce que kóllëre la bu ñuy sàmm waaye ñun ñëpp Serigne Cheikh Saliou mooy suñu sëriñ benn bum bi la noonu relation yi demee te ba ñu ngi koy sàmm nag ba fii may wax yow ndax xel ko bu jot ni ko daan bayalee way juróom bu tedd ba Serigne Saliou noonu lañ ko koy bayalee moom Serigne Cheikh Saliou mi ngi ñuy jox ay ndigalu sëkk jumaa ak tabax ko ñu ngi koy def. barki Demba Ndiaye matul huit mois lañ ko jébbal jumaa yi caabi janatul waa janatul waa mooy dëkk bi nga xam ne sëñ Saliou ko mayoon Cheikh Béthio ni mu dëkk fa ak waa këram. jumaa dañ fa tabax budget ba ëpp na six milliards. bañ koy sëkk maa ngi toog sëkk laa wax sëkk. waxuma la fondement ak miir bi mhm. damaa yàgg ci yëf yi mhm. boo ma gisee nag ci ni ma ah, ah. bëggee àddina ak ni ma mhm. fësanee nga jàpp ne miir laa nit laa koo xam ne fekkee ma boole ci yëf yi dama ah. yàgg ci bari yi jumaa ja jébbale nañ caabi yi mi yaa même pas huit te dañ ko sëkk fondement tabax ko ni mu waree bokk na ci ñetti jumaa yi dàq biir Touba gën a cher te ndigalub Serigne Saliou la woon ci Cheikh Béthio Serigne Saliou Cheikh euh, dox ndigal li Cheikh Béthio Cheikh Béthio jëfe ko ndigal li yegg Serigne Saliou génn àdduna fekkewu ko ñu jël caabi jébbal ko doomam Serigne Cheikh. waaw. parce la yabaloon. ah yoo la yabaloon mhm. d' accord. ñu jëw jugee kër sëñ Saliou Thioune. waaw ak moom ba kër sëñ Saliou bi nekk ci jumaa. très bien ñu ngi foofu lañ jébbalee foofu lañ jébbalee caabi yi. kon tey li nga xam ne mooy taarixu yoon wi. ak li nga xam ne mooy taarixu diine ak lislaam mhm. Mhm. mooy bu sa kilifa làkkoo. da ngay wéyal kóllëre gi ci doom. ndax kóllëre ginnaaw lay féete. te kenn du ko tas. absolument Sofia. Sophie am na loo bëggoon a laaj. dama lay dama rafetlu waxtaan bi Eh, di di di la gëreum ndax mhm. yow gëm nga cheikh bi ba ak sa omoro mhm. mu cheikh Bey ndax dafa da nga bay sa waar ci ëttu cheikh Béthio ba ñepp rañé la ci mhm. bay nga ci waar ba am ci tour bay nga ci waar ba melni nga wara mel tey jii nii donc cantaakoon yëpp gërëm nañ la ci ndax euh, buñ ne moroomu Cheikh Béthio rek loolu ndam la ci ci ci waa kër Cheikh mm. donc man j'ai de très beaux souvenirs sax ci li mu nettaliwaat nii mm. ndax man dama màggee ci waa kër Cheikh Béthio ndax sama ndijaay cantaakoon la woon mm. te bokk na ci ñu njëkk gëm Cheikh Béthio muy Thiam Sadikh Touba cinq maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ci ñi ko gënoon bëgg bokk ci ñi ko njëkk gëm tamit waaw ba doomam bi sax ñoom ñëpp noonu la leen tuddee daanaka xam naa leen ndeysaan ñu koy ñaanal yàlla na suuf woyof ci kawam sama nijaay la ak euh, ñëpp képp ku mu fa fekk waaye di wane ni rek cheikh bi dafa amoon beneen dimension spirituelle boo xam ne ak intellectuelle ndax euh, comme ni mu wax léegi rek administrateur civil la woon boo xam ni euh, tey intellectuellement il était bien te mm. li tax mu xawoon imposer taalibe yi ci loolu mooy Chantuk, cant gi ngay gis ay talibé yo xam pratiquement ñu ci bëri ay intellectuel lañ. Mhm. ñu ci bëri ay intellectuel de haut niveau. Mhm. Cheikh Béthio mo len defar. ay diplômé yu mhm. bëri. tay ji da nga gis ay ingénieurs je peux en citer d'autres. ay médecins médecins tout dafa mës gëm gëmloo talibem. ñu yag gëm sen bop ci côté Mouride. waaye ci côté intellectuel waaye doon taalibe ci li nga xam ne moom mooy yoonu murit mhm. ndax Serigne Saliou ni mu bëggee woon ndongo yi moom dafa bay waaram ba bëggee noonu sax ci ay taalibeem ndax comme ni mu wax sànk rek dafa nekk lu am solo man sama ay cousin ñoom ñëpp am kër janatu maxwaa ndax madinatu salaam hmm. ñoom ñëpp moo leen jox ay terrain ça veut que sëriñ dina la gunge ci tàggat la waaye dina lu gunge financièrement te xoolul yow li nga am hmm. looloo daloon Cheikh Béthio moo tax ñu bëri nawoon ko ci partage bi nga xam ne daan na ko def waaye mu am solo loo xam ne daan na ko def mooy loo ndongo yi ci euh, prytanée militaire bi amoon Saint-Louis que moom daan na fa ñëw di fa def ay cant ay boobu intellectuel la ça veut dire que instauré na loolu taalibee mi waaye gëmloo leen ni li ci li ngeen nekk intellectuellement mën ngeen nekk ay murit ba jëfee ci seen waar ba tey jii nii kenn du leen génn ci seen xeetum gëm-gëm moo tax daal nit nit la koo xam ne mm. man moom personnellement dama ko bëggoon ndax jege woon naa ko ak sunu waa kër te euh, di di di ko ñaanal bu baax ndax manqué nañu lool cuun manqué nañu bu baax a baax a baax di ziar sëñ Saliou Gueye Tapé ak njaboot gi yëpp soxna maa ne cuun ak ñëpp ñëpp ñëpp vraiment di ko ñaanal bu baax a baax a baax macha allah alors euh, jëwriñ bi mm. parce que gis naa ne bëri na ay jëwriñ un peu mm-hmm. partout dans le monde mm-hmm. parce que man c'est vrai que je n'étais pas très impliqué qui côté Cheikh comme beaucoup de Sénégalais mais les modes doon il tellement généreux et simple mhm. dangay tellement frais. loolu na xawoon ma marqué ci moom man Omaro gënoon en 2016 Omaro vraiment mhm. hommage même pas au Sénégal mais mhm. sur le plan international à mhm. mooy càkkaakun yëpp ñëw daje pour ñu ko honorer mhm. euh, Omaro nag defoon ci liggéey bu am solo man la ci laa doon gëstu nag ci Cheikh Béthio donc mu nekkoon ba pare morceau bi nga way ko mhm. euh, Cheikh ah non c'était énorme mhm. donc euh, vraiment j'ai des très bons souvenirs avec moi et puis mhm. doomam nag. di sama xarit. la bëgg. ku donc moo tax dañuy ñaanal sëñ bi daal. yàlla ko mu nekk perte bu vraiment ba Sénégal. personne n'attendait. kii de Omarul ndeysaan. Omar mu njëkk ma Omar mu njëkk ma Omar mu njëkk ma ndeysaan Omar mu njëkk ma. waaw waaw. wax dëgg yàlla bu doon waay lu doon waay waay. sunu waaja daamadu waay. Serigne Saliou waajange sunu waaja Mamadu waay Serigne Saliou waajange waaw waaw Mbàkke yaa baax Mbàkke yaa baax Mbàkke yaa gën Mbàkke yaa gën Mbàkke yaa gën Mbàkke yaa wër yaa wër yow la laa daa gën a wër Serigne Saliou buur baa nge topp laa daa gën a wóor sëriñ Saaliw buur baa nge waaw waaw ñi la xama gën a xama gën a ñi la réere ku la xam raw ku mu mën a doon sunu waa jaangi sunu waa jaangi ni Cheikh Saliou nge i waa jaa sunu waa jaangi sunu waa jaangi ni Cheikh Saliou nge sunu waa jaa waaw sunu waa jaangi

raw xam nga ni kii nii man bokk naa ci ñi mu njëkk xam ci télé bi ci cant gi lañ xamante yàgg na hmm. boobu daanul woon sax way comme nii da daan reprendre ay wayu jàmm ñun ci cant gi dëgg la ci loolu lañ ko découvrir mu dem ba gëm boppam dem nag ba sut ci moom mi maa la wax li de. lenn rek ma métti waaw variété très courte ah waaw carrière bu gàtt la nag. parce que li ko waral. parce que t'étais bien parti quand même. waaw carrière yaay bokk dama lay wax dama lay wax dama lay wax tey lu garaaw. gis nga carrière ak dund ñooy am Abdou Aziz. mën na gàtt bari solo lool. mën na mën na gudd ñàkk njariñ noonu la amee ci dund yu gàtt yu am njariñ. bari solo. seen borom def fi lu ne. doo ko dem noonu la amee ci dund yoo xam ne ñu ngi ci 83 ans. mënu la laa wax def ci réew mi. Ah, ah. dëgg la. seen dundu dee ko dëgg la loolu moom dëgg la. sept ans de carrière laa def 2011 2017. dëgg la waaye ci sept yi. maa ko way Sorano. Mm-hmm. maa ngi ko way Grand Théâtre. dëgg la maa ko def tournée internationale. c'est ak sama orchestre complet. bilaay dëgg la ànd ak raxu mii. Mm-hmm. dugal leen ci avion bi yóbbu France ñu way Serigne Sall. bilaay boobu ba tey jii gisaat ma macha allah grand théâtre nag gaa yaa ngay dem Sorano gaa mm-hmm. a nag da nga ah, ah, ma koy <laughs> damay may bayre man. famu yaroo la de. man da ngay am nag man ma roof la pexe. dëgg la def ci yow bayre nga yëg dara xoolal clip bi. bi laa ko tourné ak Bordeaux. bi laay dëgg 2016. waaw waaw macha allah. digg Paris laa dem mooy ko Serigne Sall. daa yàgg gëm boppam dëgg la de. non juróom-ñaari at yi laa la def naa ci loo xam ne. bi nga indi tey koo xam ne mi ngi ci mbir yi ba tey def ci 25 ans du ci def. loolu moom am na moom. alors mënu woon a gudd. ñoo ñëw ci Oustaz Doucouré mu mën ñu yokkal euh, aussi ñu jàngaat ci moom tuuti xam-xam. ci euh, liñ doon waxtaan léegi. Mhm. léegi loo ko bëggoon laaj Omar. waaw Oustaz dama bëgg mu ñëw. ci sama ñaari aaya yi. <laughs> ndax dama wax samay aaya mbooloo mi ree. <laughs> mu mel ni li may wax. dama ko maîtriser wul te ma yoroo ci. ma bëgg nag oustaz nga indi ay leeral ci ñaari aaya yi. muy aaya cant gi ku sant yokk. ak mhm. aaya daawuda. ismiloo. ala daawuda <laughs> layin sa kartu laxaasi na la ko Omar yàlla yàlla la xam naa fi ñuy njëkkee sax mooy e, début waxu Omar dafa am lu ñu ci war a jàngat mm-hmm. mooy gis nga nitu yàlla bu lay defar daa am fu mu koy jaarale daal man bi ma boo déggee bi muy wax ci début bi loolu nga ciy jàng mooy nitu yàlla su lay defar dafa am fu mu koy jaarale xam nga tey am na lu wax ni bi Cheikh Béthio ñëwee moom la Serigne Saliou xel li jox ko mu naan yow da jàpp ni lu ñu defar la di ko naan rek après yow yow mi toog jàpp defar la di naan après mhm. mais loolu mu ko jox mu naan mhm. moom moo indi njébbal gi ci mu sol la de mm. mhm. dëgg ma ndax dégg nga ma am. naa mooy bi. waaw kay teel yow tee nga ko jàppee. waaw teel ko jàppee loolu mu ko jox mu naan. Mm. moo ko diri ci moom. Mm. mooy barkeelu bi. mooy voilà maanaam léegi moo ko indi ci mu. mbëggeel bi voilà cofeel gi mu am ci moom. mu am mm. ko ci moom moom it mu xam ni. dafa war a soppeeku ci xale bi. léegi léegi nitu yàlla day wane boppam ci nit. Mm-hmm. maanaam bu dee wane boppam du ko wane ci boppam mm-hmm. mais day fekk benn nit ci benn askan mm-hmm. askan mën na nekk ci askan mën na nekk ci famille mën na nekk ci kër mën na nekk ci leneen maanaam xëy na duñ ko faale wala duñ ko duñ ko duñ ko jox benn importance mais nit kooku moom lay jël def li muy def ci moom ba ëllëg askan woowa di ca dund ba àddunay tukki maanaam askan woowa day day day mujj nekk ku ñuy ràññee askan woowu xam ji Cheikh Béthio askanam ci Cheikh Béthio la tàmbalee dëgg la c'est vrai askanam ci Cheikh Béthio tam mi ngi mel ni tey nga ni par exemple boo dee wax ni maanaam boo dee waat da nga naan tey ban bu dee murit mën na waat ni barke Serigne Touba mais doo dégg mukk murit mu di barke Maam Mor Anta Sali mm-hmm. déedéet du am di nga dégg tiijaan bu di barke Cheikh Al Hadji Malick mais mm-hmm. néew na nga dégg Tidiane doo dégg Tidiane bu la barke Maam Ousmane du am maanaam loo gis dafa am nitu yàlla dafa am fu muy man fu muy tàmbalee jëf jooju li ma bëgg a leeral mooy Cheikh Béthio Serigne Saliou a ngi tàmbaleek moom ci tee boobu mu ko jox mu naan hmm. maanaam foofu la tàmbaleek moom léegi yow it li nga ciy déggee mooy kon nit nekke mënta jariñu hmm. ci benn nitu yàlla te du tarbiya moo la ko may hmm. dëgg la maanaam Cheikh Béthio li ma am yëpp tarbiya ci Serigne Saliou moo ko ko may beneen bi mooy li Omar wax te mu te muy lu am solo muy togg ay ñam joxe moom mu njëkk a togg ay ñam yóbbul ko Serigne Saliou Serigne Saliou am melokaan mu am moom ci tee ja mu naanoon loolaa ne ci dereetam moom ba tax mu am fitu tontu tontu boobu mu tontu. Mm-hmm. maanaam tey jii am na koo xam ne bu doon moom la. bu doo fekkoonte ni musta dajeeg sëñ Saliou fenn dafa xëy rek togguñ benn day indi bu waxee wax jooju du wax lii voilà mais defar gi mm-hmm. li ma bëgg leer mooy defar gi moo indi mu am tontu bi mu ko ko waxee ba yeggal mu ne ko sant dong laa ci jublu laa ci jublu maanaam loolu defar gi moo ko indi mm-hmm. te sant googu maanaam àdduna ak alaaxira amul lu nit di am te du ko jëlee ci sant mm-hmm. ci sa digganteeg sa boroom mm-hmm. <laughs> ci laay tuddee sax aaya Omar yi <laughs> xam nga la yéen shakartum la azidannakum loolu yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waxal jaam su ñu bëggee may dolli nan may sant suñ bëggee may dolli nan may sant fekk dafa mel ni daf leen njëkk daf leen lancé benn pic lañ koy wax xaw ma noonu lañ ko mën a tuddee mm-hmm. parce que bu waxee ni maa leen fekk seen biir yaay yi maa leen bind maa leen jox cër yi ngeen am yëpp waaye gis naa ni yéen jaam ñi ñu tuuti ñoo ma ciy sant wa qalilun ne ibadiya shakur dëgg la maanaam ñu néew ci jaam ñi ñoom ñoo may sant te lii ñu am yëpp maa leen ko defal mm. ba pare wëlbatikuwaat ne te su ngeen ma mu waxaat fee ni su ngeen ma santee ma dollil leen kon dangay jàpp ni yàlla ñàkk koo sant daf la ciy mere dëgg parce que li tax mu wax ni yonent bi ni ko waxal jaam yi ñu néew ñoo may sant mm-hmm. te lépp man la ba pare ni waat bu ngeen ma santee damay dolli kon da ngay jàpp ni yàlla ñàkk koo sant gi néexu ko bu doon yàlla dafa am xol ñu mën koo wax kon yàlla sant gi nga koy sant moom yàlla ci sant googu lay indee ndollant kon soo bëggee yàlla di la sant faw nga koy dolli beneen bi yàlla da doon da doon dafa int dafa maanaam dafa bëgg wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko xam nga alquran nettali la hmm. yàlla day wax yonent bi waa kër nangam yonent yàlla Ibrahima ma faxe woon yonent yàlla Moussa naam maanaam yooyu muy mu doon jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. da cee boole ni ko gisoo sax waa kër yonent yàlla Daawuda ñoom ñi ngi ràññeeku ci cant gi nga xam ne ñu ngi ko doon sant seen borom kañ la mu ni daawuda ba méttee ba métti dafa taxawaat delloo lépp yàlla mooy santaat yàlla hmm. looloo tax boo dee xool mag ñi lu coow li bari bari même bu dee natt lu mën a doon dañuy jëlaat lépp delloo ko sunu borom hmm. maanaam dootu dootu ñoom dootu sant gi day dem ba yow da ngay dàqu maanaam dootu exister. Mm-hmm. mais cant gi rek mooy exister. léegi loolooy waral lu la dal nga sant yàlla. parce que yow yëg nga du kenn kon yàlla la. Mm. léegi nag li ci li ci li ci amaat solo mooy man mu romb di dem gis benn tànt ñu dañ fay cant ma ñëw ba jub ko ñu teg benn palaat mu def petit pois ak yàpp ma xiif ma sukk ci lekk jóg dem sama yoon. est-ce que yëg nga ni maanaam lekk googu ma ca lekk dem yàlla mën na ci dëgg ci man benn nit daa xam waxuma mbooloo benn nit ba fa lekk yàlla mën na ci dëgg ñi mu bokkaloon ndab li mu jéggal leen seeni bàkkaar ña ko togg mu jéggal leen seeni bàkkaar ña ca def seen dërëm mu jéggal leen seeni bàkkaar ña ko fekkee mu jéggal leen seeni bàkkaar yàlla mën na ci dëgg léegi ñaata xam nga xam nga xam nga tey am na loo xamante ni bu dul woon ak cant du dolleeku. gis nga li Omar wax juróom-ñaari kilo yi yàpp bu hmm. fekkoon cant taxu koo jóg maanaam du nekk xar hmm. dëgg du nekk nag bay nekk ay nag dëgg la mais maanaam kon da fay déggee laaye ji ba tey su ngeen santee ma dolli hmm. ki jël juróom-ñaari kilo yi yàpp sant ci yàlla yàlla dëgg ci cant gi mu ko cant ëllëg mu yokk juróom-ñaari kilo yi def ko xar def ko nag def ko naan ba tey mu laaw ci njabootam ba bu bu bu maanaam mu jota bu bu jamono yooyu jotee kenn ku taq ci moom yaa ngi sant maanaam yaa ngi sant yaa ngi koy sant la yàlla loolu it day dellu ci wax bi Serigne Touba Xaadimu Rasul waxoon ni lii may woote soxlawuma ci lenn lu dul ñu sant le ma ci yàlla muy xam nga wootewul lenn lu dul cant moom it mhm. nañ maanaam ñëw leen mhm. sant le yàlla même boo ñëwul foo mën a nekk sant le ma yàlla fa nga nekk mhm. cant gi cant nag sant yàlla nag léeg-léeg dafa am boroom xam-xam yuy wax ni léeg-léeg sant faw mu nuroog tiitaru dëgg la léeg-léeg nit di sant ba sant gi nuroog tiitaru mm. xam nga tey jii ma ni yàlla ko Omar macha allah mu ni yàlla li mu wax sànq yàlla teral na ma ci ci way naa fii dem naa Europe def naa ci tournée nangam def naa na maa ci njëkk def naa maa def naa maa loolu du tiitaru ak cant la ak cant la dëgg la loolu du du tiitaru ak cant la te wamaa bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla moo wax yonent salaay salaam ni ko su ma leen defalatee ay xéewal dee leen ko waxtaane maanaam bu leen bu leen ko xumtoo mais dee leen ko waxtaane mm-hmm. léegi yenn yenn cant gi léeg-léeg nit di sant yàlla ba ku gàtt xel day jàpp ni day tiitaru fekk moom day sant yàlla mm-hmm. gis nga Abdourahmane nit mën na ñëw fekk la nga taxaw mu génne xaalis ci poosam mu nekk ab takk ñëpp di jàkkaarloog moom mu la koy jox ñu naan yàlla taxul fekk yàllaa tax mm-hmm. nit mën na la bokal dara fekk yàlla taxul. affaire bi nekul ci fofu mi ngi nek ci. do wala do mo aadama bi mi li def yene bi. mu koy bi mu koy defé te Cheikh Béthio niko Sofia waxé gis nga dafa am yu mu réaliser yo xamné yu jara baye xel la. ben moy talibé bi la top nga daggal ko kër. jox ko ko. wan nga ko ni yowmal xiyaam su ma fa amee ay parcelle kenn du la njëkk am waaw mhm. du ma la fàtte. ku la mënta may parcelle ci àdduna dig la parcelle aljana da lay nax. dëgg la ndax fii leer na mais fee leerul. dëgg la ndax demagun fa. loolu voilà maanaam loolu am njàngale mu rëy la. la dajale ak njabootam yëpp ñu ñëw mu jindi ci poosam ren di ay gàtt. Mhm. berndeel leen ko ñoom ñëpp ñu àndandoo lekk maanaam. ki ki ki nangoo jël alalam boo jëm jënde ju ko ndawal ngeen bokk ko su la nee ëllëg lu ma am ci kanamu yàlla ñu bokk ko war nga koo gëm. la mais ku mënta bokk ak yow palaatu ginaar nga gëm ko doo nit. doo nit bu nekkee sa nit la. yàlla def mee ko teraanga. keneen ki mu nekkal moom am ay problème te mu leer ko ni kii si ay problème la ne. mu seetaan ko seetaan ko seetaan ko bu demee nii minute xam ne kii sonn na. xam ne kii bu doon bu doon bu doon diine mooy dox bu doon charia mooy dox xam naa sax dalu la mais bu doon charia mooy dox. waaw waaw dama exemple. bàyyi ma man bu doon tey jii dañ di la. suba su la su nit mu amee. waaw seetaan la yow ba nga loru. Mm-hmm. moom bu chari bu li bu tribunal l'islam doon dox. Mm-hmm. moom dañ koy àtte. doxul. Sénégal kat Sénégal da nga fa gis. mu dox bokk ci coupable yi quoi. waaw dañ koy àtte. d'accord mm-hmm. tey jii bu fekkoonte ni ku mu seetaan la ba mu faatu dana maanaam dañ koy àtte ni maanaam. dafa daf maanaam comme ku complice su ku rey nit. d'accord. loolu alaf wax na ko xamal xamal ma alaf na koo a dimbali te dimbali woo ko bu dee yaa ko bu dee yaa ko rey waaw kay léegi nag problème bi nag dafa nekk ci dugg na trois minutes comme ça ñu bokk waaw problème dafa nekk ci mm-hmm. Mm-hmm. njàngat man lañ war a am ci jëfi Cheikh Béthio Thioune mm-hmm. léegi foofu la problème bi ne mooy omarkat kat taalibeem la moom cheikh bi rek la xam ba ñi ko xam ñëpp Cheikh Béthio lañ ko xamee Omar mu Cheikh Béthio Omar war naa fexe moom ba ku mu jëflanteel nga yëg ci ak cant dëgg la maanaam loolu mooy solos diw sama sëriñ la dëgg la mooy moom war naa fexe ba xool fi tracé bi cheikh bi jaar moom mu ne ah man comme kii laay moo moom laay topp tracé bii mu jaar foofu laay jaar ba bu ëllëgee bu geesoo yam ci man. yow loolu loolu loolu mooy mooy c'est pour qui la question pour. c'est pour rapidement comme ça on va terminer. voilà déjà pour commencer li nga wax léegi ci ci cant gi. ak koo àndal dimbali ko moom ci loolu la nekk. waaw wallaay wallaay macha allah ci loolu la nekk ku mu nekk dina la teg loxo. te dina fekk fu dara newul mu def fa dara aussi dina la teg loxo ba nga yaakaar ne sax li muy def daf ci am intérêt te mm-hmm. par li ci ëpp moom moo ci am mm-hmm. Mm-hmm. baax na tam sénégalais xam ko ci ay baax baaxu Cheikh Béthio Omar tam ma gis ci mu daan mayante taalibéy seen biir loolu bëgg naa xam nan la daan demee parce que mu nekk lu am solo parce que koo xamante ne nii jox na la nga lekk jox na la nga dëkk may na la soxna njabootu Seydina Mouhamed par exemple da ngay ñëw rek mu ne Omaro dama lay may diw comme ça naturellement ah, non man dama lay demee ah, waaw nan lay demee exactement foofu sénégalais yu bari Uh-huh. juum nañ fa ci Cheikh uh-huh. Béthio uh-huh. ndax kat nit day jël ay responsabilité responsabilité askor du ko daw rawatina ngay kilifa te bu la yàlla dénkee mbooloo dénkee la ko ndakaaru ñi ay goney ndakaaru ñi juddoo Sacré Cœur ñi Mermoz ñi Parcelles ñi Pikine ñi HLM ñi Géejawaay ñuy daje sa kër guddi gu jot di fanaan ne sant ba fajar di ay góor ak i jigéen di lekk xorom di ma suukar. seen deret tàgg jër ñu nekk ay ay ay gone yu tuuti. nga leen di bàyyi ñuy raaxaloo ak bi jaxasoo boo liggéey di nga ko lekk sa borom. moo waral mu daan jël ay responsabilités góor bu ci am fukki at ak juróom. mu mu non góor bu ci am fukki at ak juróom-ñett. mu takk loola jabar par force. jigéen bu ci am fukki at ak juróom mu may la jëkkër. parce que boobu responsabilité njaaloo ci suñu biir ak jaxasoo ci suñu biir mu yaru àq ba ak bàkkaar ba la doon bañ mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag ci nim nga daan mayee mm-hmm. nit ñi daanuñu woon comprendre li xew dañuy jàpp ni da ngay ñëw toog rek sëriñ bi ne Omaro jugal nga jóg taxaw mën a may naal ndaa si fusti gars daat fusti ñu way sant nit ñi ñoo ndokkale la jox la ay koppar nga def ci sa poos ànd ak sa jabar dem affaire yi non non non demeewul noonu ah gis ñaar ñu bëggante dañuy bëggante ba noppi. waaw loolu lay gis. man sama premier soxna. ma maam Jaara Fall. Mm-hmm. fii ci Medina. Mm-hmm. génn naag moom sept ans. Mm-hmm. seex bi doog ma koy may. parce que dañ ne génn doxaanante doxaanante xale génn xale. sept nekk ay xale. <coughs> mariage bi def. bi def na ay deux ans et moins de trois ans. très bien génn génnu xale. ba seex bi gis ne toll naa ci war a am jabar. mu laaj ma koo bëgg. ma ne ko maam jaara laa bëgg. Mhm. mu joxe diggal mu seeti maam jaara ak i mbokkam ak i waajuram mhm. ñu waxtaan ak ñoom ne leen kat damaa yéene. jël Omar mii may ko soxna jaara. très bien bu ci d'accord li ci war ñu def ko ñu may leen. très bien. mu ànd ak jëwriñ Gajaga ak jëwriñ Abdoulaye Diop Diokere ak communauté bi dafa am benn communauté boo xam ne tey ci kuréel bi ñoo yor wàllu sëy yi ñoo gérer ñoo ñooy dem waxtaan ak mbokk yi waxtaan ak waajur yi joxe warugar bi mhm. ci alalu Cheikh Béthio parce que boobu yor lu ma joxe warugar Cheikh Béthio ko joxe ci alalu Cheikh Béthio la ñu joxee bu ñu ko joxee ba noppi nag mayee ca kër ga ak ca jàq ja ba noppi ci alxames ba doog a ñëw ci samedi bi Cheikh bi may waat ci baas bi. d'accord léegi nit ñi duñu comprendre. dañuy gis ñaar ñu taxaw rek mën a barkeb Serigne Saliou may naa leen. feddali ak cofeelam ak yéenam ci ndaw si ak ci gone yeeg ci xale yu góor yi ñu ne béykat may na la fekk dañ leen may seen kër ndey seen kër bàyyi jeudi ba noppi. doo ko ñëw samedi may la ci canal. maanaam Omar kon maanaam dañ daan maye. waaw suñu maye man lii ngeen wax sax. am na keneen ku ma nettali lii. nii la demee mais cheikh bi daawul. maanaam daawuñu ñëw mu ne maye naa leen. dañ daan ñëw moom mu siiwal ñaanal leen. li mu doon def ñaan la. parce que responsabilité am la gis nga foofu tamit. Mm. lu jar a saluer la. gis nga mbooloo bu ñu la toppee. Mm. ni ñi la top seen responsabilité ci sa loxo la ne. gis nga lii mu li mu li mu wax nii. bépp kilifa bu ay mbooloo topp. sa responsabilité la. nga lijjanti mbooloo nak ëllëg lu ca am dañ ciy am part de responsabilité. te loo te la xamoon moo tax mu tolloon a jël. ay responsabilité alhamdulilah rabbil alamin nag bi nga le mi leeralee parce que. xëy amna ko xamanteni ni yow nga wax ko. ci lay gëna mëna comprendre que man ma wax ko mais man lu mel ni ko xamanteni xamante ni cantaakoon la sama xarit la dañuy waxtaan lu bari mës na ma ne sama sama mag moo ko jur. Hmm. sama astafurlah sama rakk yaay moo ko jur mës na ma wax lu lu lu. lu mel nii lu mel nii laa ko dundee waaw te te lii te lii moom maanaam xama nga mooy réew moo dañuy wax te du am source. du xam hmm. du ñu xam li xew. Hmm. moo tax ñu mel ni lu nekk ka koy dund. moom moom moo ko mën a leeral. jërë ngeen jëf sur ça malheureusement on ne peut on va boucler Omar. xanaa ma tàggatoo rek exactement euh, jëf tàggatoo bi du gudd sama sëriñ laay koy ñaanal. dëgg la ndax tey ña nga ca këram tànt baas bu mag. rey bernde yi gëléem yi desul nag yi desul xarit desul bëy yi desul cérémonie officielle bi 18h la war a tàmbali te maa ko war a présenté. loolu mooy waral sama jug fii. ngir mën a bi foofu le plus ma possible incha allahu. waaye maa koy ñaanal yéen ji bàyyam amoon ci moom. yàlla dund mu mottali ko. alhamdulilah Serigne Saliou Seydina Thioune. mooy sama Cheikh Béthio. Mm-hmm. ku keneen nag ci mbooloo mi am nga sab Cheikh Béthio. كم نهيت خلاص تدومي أكيسار نيكو لا نه لا دفع كم يساب سير ميتوا مودون ساب سير ميتوا ساب سير تراك لا دفع كم خلاص سير ميتوا من سرين سالو سيد ناجون موي سماب سير ميتوا موي سماب سير تو سير ميتوا تمام لا كم خلاص من كوني أنا يالو قدر فرام كبير أي كلام بباخ باخ جون بيتوا

Uh, salute. <laughs>